France da koy def euh, dans la gestion de nos pays. waaw loolu nag dese naa ci boo ko gis-gis ak sëñ Dramé ak euh, Ousmane tuuti. Hmm. Eh, dafa laaj bu ma sampoon sànq ci bi fi kilifa gi nekkee doon ko ko laaj ci wàllu CEDEAO parce que daf ne. CEDEAO ne nañ ko joyanti maître Abdoulaye Tine dafa déposé affaire bu ci CEDEAO ñoom ñu wax ne ni ñuy defee parrainage déjà respecté wuñu doxalin wi ba pare suñu li ñuy wax ci comme. Euh, Euh, électeur bi li ñuy wax luñ koy waxee ci ci. par exemple. loolu dañ ko war a joyanti beneen bi mooy li fi nekk ci ay parti politique soo ko kii woon mandaxe woon ci Sénégal maanaam mbir yi du ci xaj loolu kon dafa am lu leer luñ ci wax mais waa ji jiite réew mi ne maa tey continuer man laaj yooyu ci laa ko bëggoon a laaj bëgguma tontu am na lu mu wax ba ne ma waxuma dëgg xam nga man li ma ko wax sax su ma waxoon juum amut problème mais pour man jàpp naa ne du Ousmane Sonko ko xaw ma Ousmane Touré ko jógloo parce que moom wax na fi ne Sénégal ñaata télévision classique yi cinq lañ matuñu sa ëpp ñu cinq te waxul dëgg <laughs> télévision classique yi ëpp nañ loolu pourtant bu dee juum ak yooyu lay classé rek man maa ko gënoon a mën a wax te pourtant bu ñu duggoon chronomètre plus de vingt minutes def na ko loolu mooy li nga xam ne moo fi nekk ci kii bi beneen bi mooy école de parti yi ñuy wax wala ñoom lii mu xam nii bu dee plateau bi kenn waxu ko fi lu ko jar loolu mooy école de parti man de école de parti bi ma jaar parti démocratique sénégalais ci la bokk xam naa wax dëgg yàlla am seen i wuuma seen i fàllaay xam naa nu mu demee nit mënuma ma cee wax lu ma mënul xam tey bu dee yar ak tegg nit yar nañu fa ñu war a yare wax nag li fi am du tey man aw ma problème mu ne waxoo dëgg wala nangam bi may jël kàddu gi dama ne ndax man naa kon tooñu ma kenn du njàpp du moom léegi buñ mënul amul problème dama waxoon rek laa comme interagir waxtaan la loolu moo taxoon bon su ma ñëwee nag ci li concerné Karim Wade man dama jàpp ne laata mënoon na maa xalaat ne candidat France la mais man li France def pour man def ko yàqal. daa yàqal Karim bu baax te man bu ma doon Karim Wade maa ngi koy wax rek benn ku ma yaakaar ne mi ngi ko jege ma ne ko Karim Thierno Alassane Sall bi muy tontu. ba ciy tuddaale Amadou Ba ñam war a tudd mooy l'état francais su leen ñemee parce que nag man damay delloo nit ki ci démbam Ablaye Wade dëgg la soxna France la yor Karim Wade France la juddoo France ak Sénégal ko seq mais bi ko Macky Sall di toroxal amul lenn lu ko ci France defal y compris même dañu taxaw bàyyi mu duma bi ñu demee ba koy génne it parce que man nëbbu dëgg moo fenn laa yemale man ceddo laa même bu fekkee ne sama noon nga sax li ma xam ci yow dama koy wax bi ñu koy génnee dëkk bi bi mu demee ba xam ne génn ci jot ñi ko doon génnee France lañ doon xool ak feneen moom moo mujj taamu Qatar parce que Qatar la gën a wóolu ci France parce que jàpp na ne France du fa rawee kon loolu beneen non non non non génn gi xam nga Ousmane Sonko dafa am avocat bu mat ata avocat muy maître Ciré Clédor ki nekkoon tey taxawaayu Maître Ciré Clédor donte Maître Ciré Clédor mi ngi woon ci Karim Wade mais Madické Niang ci gën a xejj te paaka biñ ko ñàddee Madické Niang ko daas man xam naa ci dara bi muy xiifal ba ñu dem ci sëñ sii di Muxtaar ñaari oto yi demoon benn bi aali naar moo ko doon dawal bi ci des maa ko doon dawal ba ñuy yegg kut fii ma Madické Niang nekk moon ci oto boobu mais bi aali décroché ñam décroché ñeent ñam nekk lam wax gëm naa ko parce que ña ko fekkee ñëpp dëggal nañ ko ci découragé ku mu bañ a dem ci sëñ Sidi Muxtaar bi ñu yeggee ba am résultat ñëw di jox Karim mu war a dog ci lay doog a wax Ali jaaxal nga ma li nga man ñun murid yi sax mënuñ ko nga doon magum murit doon avocat nit mais ñu jël dara di ko ko teg nga xam ne baaxul ci moom te nag na nit ñi xam ne Karim woon na Mamadou Ibra Kane boo fàttalikoo avant ñu koy génne am na benn jeudi bu njëkk di wax du Bakane res dem gis Karim génn RFM jamono boobu parce que kon mi ngi mel ni rek jàppoon na ne télé boobu xaj na li gën a arrangé nguur gi xaw ma nu ñu def ba mu kii mais bi maam génne dane Karim wax na ma ñett benn bi dinaa ko wax bi ci des dinaa ko wax bi ci des duma ko waxi nee na daal ñu ngi ko bëgg a gracier bëggul grâce mais liñ doxal dem ba yegg ab bés Macky Sall dem fi Touba sëñ bi yable ci Karim Macky ne ko ci liñ ma nettali na génn ab diir parce que jamono yi buñ ko kiyee dëkk bi day yëngu bon mënoon na tànn bañ comme loolu am na lum ci gagné parce que dana dëggal Sénégalais danañ xam ne jàmbaar jàmbaar la mais ci côté fa mu gën a yaakaare électorat ci jamono boobu nag du jamono bii su bañoon am na lu mu koy xañ ñaar yooyu mu teg gën a jël bële mais déporté gi colis bi biñ koy colis doon lu ko gënal yem mi génn gi parce que wax naa la lii mais bi ñu demee ba mënta ñàkk moo tànn Qatar bañ a tànn France kon tey man bi ministre bi waxee li mu wax bu doon Karim Wade doomi Abdoulaye Wade dëgg la parce que man dama cee démb laa ci bind ne maa maa ngi doog a xam nekk Karim Wade parce que problème bi mooy renoncement foofu sax am na lu seex Ousmane léegi wax léegi dana ñëw mënoo yow président de la république lañ ne boo renoncé woo faaw xaatim ci mu doog a wér wala première ministre am wala ministre de l'intérieur am loolu amul sens mi ngi mel ni Ousmane Sonko bi ñu ko euh, dindee ci liste électorale bi dañ ko koy notifier il a cinq jours pour àddu ci lan moo tax loolu ñu koy notifier parce que moom la concerné su fekkoon ne dénoncement la maanaam dañ koy dindi bu boobaa ka koy dindi muy autorité bi comme muy juge bi wala muy président wala ku mu mën a nekk dana am sens mu notifier ko nit ki mais dindi gi dafa am diire bu muy am comme li ci maître Abdoulaye Tine wax bu xasee am 6 mois considéré nañ la ne dañ nga ci kon man bu France demee bay ñëw di dëggal naan Karim Wade dañ ko ci dugal ki yow koo xam ne depuis 2018 avant 2019 defoon nga renoncement pour renoncer wu déjà su ma kii woon sax danaa leen ko yónnee man maa ngi kii bi depuis bu libération defoon parce man mii di la man 2019 laay dooga bi ñu bëggee nit ñi ci laa tànn dem jàppale ji Sonko looloo ma yóbbu sax ma mujj démissionné ci parti bokkatuma fenn mais man du ma nëtt ci benn élection Sonko mooy sama candidat mais nag li nga fekkee da ngay wax ni mu demee renoncement boobu loolu dafa am te buñ téye mënoon naa su ma ko xamoon ne loolu sax dama leen koy yónnee ci jamono boobu kon France bu demee bay dugg suñu dëkk lu mu ci doon laay wax en tout cas tey na xel <laughs> man tey na xel jamono yi ku dul Ousmane Sonko man dàquma sa lëkkaloog France y compris même Thierno Alassane Sall mi ko dugal ak ñëpp fi mu toll nii sama xel dalul ci ñoom parce que problème man dugal gi problème la ci man même Karim Wade mi ci lëj di weddeekat euh, tii au lieu nga ñëw Sénégal fii wax ak nit ñi toog fa nga toog yaakaar na yow sénégalais yi danañ la xaar ba bàyyi la nga dox say muraada ba mu neex la nga daal ñëw ne maa leen di jiite beneen bi mooy man sama sama. xam nga démb dama koy wax waa PDS parce que dama jàpp boo jógee fenn da leen sagal bul fa wax lu kii wut wala dara mais démb maa naan lan su ngeen ma poussé ci wax li ma xam bu boobaa du du baax te bëggoon naa ko denc pour man jël sama candidat Ousmane Sonko rek wax ci parce que li may xam di ko wax dèjà man saa wolof lañ may wax bi may jàng wolof bañ may ma ma mën a jàngale dafa am kuñ doon wax Jean Semedo faatu na ci Covid bi bokkoon na ci ñi Karim Wade wóolu dama ko wax nekkoon nag Karim jàng wolof mu ne ma noo dégg na ma ne ko non dem naa prison wax naa man wolof mais wolof yi mu wax taq na mais bu ñëwoon ci suñ keppaangu gi dafa am ku ñuy wax Daniel Silano italien la. Euh, jëwriñ euh, imam gis nga ko moo la waroon revue de presse benn baatu tubaab du ci dugg te masta teg tànkam Sénégal dañeel Silano day def parce que dañu am caabal ci suñu kuréel gi boo xam ne dañ ciy tàggat nit ñi. pour ñu gën a mën a xam làkk wi parce que ñun dañoo am ay côté ci wàllu xel-xam maanaam scientifique ñoo xam ne ay saawolof lañ ci science la ñuy nekk ñii di ay malamiñal di ay linguistique ci wàllu no boo ma daggee fii dèjà li may joxe information kon soowee nga waa PDS parce que li ma doon wax <laughs> déjà non ma teg foofu su parce que li ma doon wax ni moo ko waxoon malheureusement pour ni ko doon teg heureusement pour waa PDS ñaap dagg na ma. <laughs> parce que bu ma ko yeggale woon rek yaakaar naa gars yi gars yi gars yi suba suba xam dëgg-dëgg ne Karim bëgg na Sénégal wala bëgg na làkk wi wala bëgg ko mais malheureusement may dagg. wala ma yeggale ko ma yeggale ko voilà. boobu dama ne ndaw si na jàng parce que li muy jàng kii ma saa. yow dimbale ma rek ay wolofam setul woon moom it nga jàngal ma soo ma jàngalee man après bu ma waxee ak waa ji dinaa ko convaincre ba mu kii. ndaysaan am na suñu audio yoo xam ne ba léegi maa koo garder faragut dafa faatu quoi mu ne ma euh, tàmbali di wax mu ne ma sawaay bi ma dégganteeg moom am na baat wolof bu ma wax mu ne ma yow yow foo jàngee lii mu ne ma allez rek nañ continuer su ma paree kon Karim su ko Sénégal ñoroon na si resque ci suñu kipango yi ay waa PDS ci ëppale woon. tege Pastef tege Abdourahmane Diouf ak yooyu am na ñu ko jàngal sëkk jëloon naa jëwriñ yoo xam ne ku ñuy wax Ismaïla yi nga xam ne ci wàllu kilifa diine yi wala om politique yi wala professeur d'université yi wala ñooñu kooku moo leen doon beral seen kippaango pour rien que pour mu de te yii information joxoon naa ko te li ma ndaw si jox moo tax ma xam ne Karim Sénégal des na koo ñor moo tax man damay opposé damay xeex jusqu'à mon dernière énergie. waa PRS nañu wuti beneen candidat. Karim du def affaire. Ah. man wóoluwuma koo jox Sénégal. mais nag du tee liy dëgg it du ma ko fenal. ci côté bi renoncé woon na démb tey soog a ñëw. mais Karim ci boppam man laa jàpp ne moom lañ warta jox Sénégal parce que Sénégal ñor ko. Mm. ci li ma xam ci làkk yu ma nekk nekkoon PDS amoon ci yéene trop. boole woon kook ñeneen ak ñeneen te jëlul occasion boobu toog fa mu toog nekk ci prison bi jéemoo jàng lu la may pour nga mën a communiquer ak Sénégal surtout làkk bi nga xam ne langue véhiculaire bi fi nekk muy wolof loolu la yàlla dogal li ci sa baay xam di magum kajoor yow jéemoo koo lijjanti ba jusqu'à nag maa ngi ñaan yàlla mu ñëw fen loo ma ñëw wax ma wolof yu leer merci beaucoup merci beaucoup Saa Wolof euh, Cheikh Ousmane euh, par rapport ak. Euh, candidature Karim candidature Karim Wade bi ak communiqué express bi nga xam ne. gis ko mu jógee